Euh, ak Pam nga Ndiaye mais moom jàpp mhm. na ni euh, nguur gi fi nekk nii euh, diirub ña ñetti weer jëm ñeenti weer yi nga xam ne fi lañu ci lañ fi nekk mhm. maanaam puusuñu paasuñu maanaam duñu tëlee ci gàttal mënuñu est ce que jàpp nga ni Bougane Gueye Dany nag wax dëgg yàlla ci diirub ñetti weer ba ñeenti weer moom teelul trop trop muy wax ndax ñi mën nañu <laughs> wala wala <laughs> fait en fait man dama gëm ne Bougane moom li gars yi naan il déçoit jamais <laughs> Bougane moom il déçoit maam nga xaar ko fii mu ful feneen non cest à je pense que loolu Sénégal ba eh, li gën a grave mooy. nga nekk homme politique. da ngay dem même dans les commentaires les gens te disent non mais Bougane il a un problème de niveau. léegi gars yi dafa ne ba nañ ko def benn genre hymne quoi Bougane il a un problème de niveau. parce que cest à il il s'est efforcé moom fexe na ba xamal sénégalais yi moom il a un problème de niveau parce que à chaque fois xoolal débat man dama gëm ni faire de la politique au Sénégal ci moment bi ñu toll nii du lu yomb. c'est c'est c'est quelque chose de très compliqué parce que danga nekk en face de sénégalais très très très éveillé mooy looy wax lu ne dañ nga cee war a mën a duut baaraam. Mhm. soo leen nee euh, ñii fi nekk kat dañoo wor parce que c'est-à-dire un discours politique dafa am foo koy fonde je prends l'exemple d'Ousmane Sonko et j'ai j'ai l'habitude de le dire je dis souvent que Bougane c'est un très grand fan de Ousmane Sonko parce que dans sa manière de faire de, de la politique tout le temps dafay bëgg ci façon bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko doon doon opposé woo muy bëgg di opposé woo de cette de cette façon là mais boo xoolee tey jii ci biir ci biir euh, discours am. c'est-à-dire mm-hmm. tout le temps y a des incohérences xoolal dem rek par exemple benn détail bu ndaw. Mm-hmm. Bougane di wax ne <laughs> chiffre euh, port autonome de Dakar gis nañu ci euh, benn benn benn wàññeeku bu toll ci quarante pour cent. quarante pour cent quarante pour cent au moment où récemment info yi yëpp ñëpp sénégalais gis nañ ko ñuy wax ne kat mbir yi egg na si seize pour cent c'est-à-dire tout le temps. da ngay indi des contre vérités yoo xamante ne nii. Mhm. saa boo ko tegee ci ko taabal ji xebeel nga siy jur ci sa diggante ak nit yi. récemment dal na ko ak euh, sujet bu mel ni par exemple lu mel ni fonds politique yi. ci conférence de presse bi mu def la dernière fois génn ci conférence de presse bi di wax ne bon euh, ñoom ñoo waxoon ne bu ñëwee dañuy ça dama gëm ne le discours d'un homme politique warul nekk benn discours aérien quoi comme nga génn rek romb benn grand place nii gars yi toog waxtaan kii ne Ousmane moo waxoon lii kii ne Macky Sall moo waxoon lii. le discours d'un homme politique du discours benn waaye bu toog ci grand place wala kuy wax loo xam ne c'est pas fondé. <laughs> dafa war xam ne boo ko tegee. gars yi dañuy xam ne kat diw mi li muy wax c'est vrai. xoolal tey jii waaye ne woon na ma bëggaan yenn information ci groupe WhatsApp yi. WhatsApp yi la koy xam nga xam non c'est vrai cest à problème mooy tout le temps <laughs> da avancer chiffres yoo xam ne c'est eh, archifaux. mais non non non mais bëggaan def dem def ay ay <laughs> dem def yëpp cest à <laughs> ci ci ci groupe WhatsApp yeeg. non mi ngi force affaire bi ah affaire bi moom mi ngi góorgóorlu. mi ngi góorgóorlu mi ngi xëcc affaire bi mi ngi forcer affaire bi mais affaire bi moo ko wuy siwul c'est-à-dire tout le temps mais si ay problème euh, moom mooy man ban Bougane la ñu war a gëm affaire Bougane bi nga xam ne buy ñëw tey def si émission soit TFM soit Sen TV soit 313 soit Sénégal 7 Bougane buy ñëw day jënd ay vues c'est-à-dire sénégalais yi <laughs> sénégalais yeneen di seetaan yow yaa ngi ci presse bi maa ngi ci presse bi peut-être ñi xamuñu mais yow xam nga li ngay wax xam naa li ngay wax <laughs> yi yeneen di seetaan ñoom dañuy jàpp di Bougane xam nga démb dem na ba 53 cas muy 53 mille personnes yu koy seetaan en temps réel alors que ñun xam nañu que ni. loolu mais dafa bul fàtte ne Bougane dafa. te c'est pas la première fois en fait. ñoom Ching Chong Xung ñoom Xing Xong ñoom dañ ko bëgg te dañ koy seetaan. c'est-à-dire tey man Bougane man la man question bi mu koy laaj di ko laaj ni mu àndal bu fekkee ni ñuy dégg mooy tey Bougane bu fekkee ni dafa ñëw di wax nii ñi fi nekk tey nañuy wax les sénégalais dëgg maanaam bu ñuy mentir les sénégalais <laughs> moom lii bu nekk di def nii ça s'appelle quoi en fait maanaam ñëw wan sénégalais que ni tant de personnes ñu ngi lay seetaan alors que c'est pas vrai ñun xam nañu que ni euh, da nga jënd ay vues maanaam ñu ñu ci bare bare ñu lay seetaan ay rebo yu yu yu toog la yoo xam ni YouTube moom moo leen placé loolu tamit sa pose problème tey bu sénégalais demee ba découvrir loolu est-ce que tey dina yomb Bougane mën a waxat ci dara sénégalais loo xam ni dañ koy dañ koy dañ koy mën a gëm c'est ça man la question que je pose ak ñi nga xam ni tey ñi ngi ànd ak Bougane ndax am na ay conseil ndax euh, ñeen ñi ñu koy wax muy dégg man loolu luy luy luy traversé sama esprit la loo xam ni tey bëggoon naa ci am ay leeral malheureusement comme ni nga waxee c'est ça le problème mooy euh, ñoom dans leur li ñuy li li ñu jàpp ñoom mooy moom mooy keneen ak keneen ñoo xam ne jàpp nañ ne ñoom ay opposants lañu dañoo toll ci moment boo xamante ne c'est-à-dire nit ki pour nga am visibilité c'est c'est c'est quelque chose de lu yomb la comme bu njëkkoon par exemple nga xam ne benn RTS moo fi nekk bala ngaa génn télé c'est tout un problème bala ñu laa wane bala ñu laa bind ci journal bi il faut que nga nga nga nga imposer wu mais jamono bii nii c'est-à-dire pour pour que nga feeñ ci ci ci une journal pour que nga nga nga def l'actualité c'est très simple malheureusement ñoom tout le temps li ñuy bàyyi xel mooy euh, man maa ngi def l'actualité mais est-ce que yaa ngi def l'actualité de manière positive mooy nit ñi di xëy di la gën a naw euh, di la gën a gëm ba ëllëg bu ñu demoon ci élection euh, législative wala yeneen élection sénégalais yi mën a am confiance ci yow wala boog yow daal l'essentiel mooy saa bu xëyee nañuy wax bugaan bugaan bugaan bugaan bugaan et dans leur tête ils se man maa ngi existé parce que du ma xëy benn bis boo xam ne waxtaanee wuñ bugaan ci biir réew mi. <laughs> des fois dafa doon toog mm-hmm. ñu ni bugaan des fois li koy yow saa su ne ni lay tudd que ça soit mu nekk lu positif

Abdoulaye Wade mën na wax ci contexte bi mu nekkoon moom parce que ban Sénégal la Sénégal boo xamante ne le Sénégalais le débat politique bi yii di posé wu nii Sénégalais bi di xam ndax Bougane wax na dëgg wala waxul dëgg est-ce que li muy wax ci gouvernement bi dëgg la wala du dëgg par exemple exemple bi ma doon joxe léegi léegi mi ngi wax ne. Euh, lu mel ni par exemple le protocole de xaw ma Cap Manuel xaw ma yu demee mais yow yaa ngi taxaw nga ne Ousmane Sonko nee na dañu dañu dile ci kaw kaw askan. waa léegi moom si waxam. cest à mooy li ma lay wax c'est-à-dire da ngay wax ay contre-vérité yoo xam ne day leer nañ naññi sénégalais ñoo koy gisal seen bopp. et loolu lenn nga siy jural sa bopp mooy di ridiculiser sa bopp nit ñi duñ la jox crédibilité bi nga war a am mooy tey nga ñëw taxaw nga ne usman Sonko moo génn mu ne. Euh, moom ak Macky Sall waxtaan am na Ousmane Sonko moo ko wax. bi mu defee conférence de presse ci Azalaay. Mhm. Ousmane Sonko lan la wax ak lan la Bougane wax Bougane dafa ne Ousmane Sonko nee na waxtaan nañ waaye. d' accord ñu si ñetti point mm-hmm. léegi moom Bougane muy laajte comme d' accord si ñetti point yooyu noonu yan point la ñu d' accord ñoom alors qu'en mais ñun ñëpp on était là euh, <coughs> Kébé mm-hmm. bi Ousmane Sonko di wax ne waxtaan nañu si ñetti point te ñetti point yëpp d' accord ñu si mm-hmm. cest à manipulation boobu la sénégalais qui comprend ñetti point yi sax kay moom dafa dafa sawar a laaj rek mais xam nañ ko sax da ko leeral léegi léegi le sénégalais qui a suivi Ousmane Sonko mu wax ne ci ñetti point la ñu waxtaan te ñetti points yi ñu waxtaan d'accorduñ ci waaye waxtaan nañ def nañ lépp dans le respect. am na ñuñ d'accord mais am na ñuñ d'accordul. non dafa ne ñetti points yi la ñu waxtaan. Mhm. ci ñetti points yi d'accorduñ ci benn. loolu Ousmane Sonko joxe ba mu génnee ci euh, conférence de presse boobu mu defoon ci ci hôtel Azalaï léegi yow pour nous dire non léegi d'accord na moom wax nañ nañ d'accord nañ ci ñetti points yeneen points yi ñu d'accord lan la benn. le sénégalais qui a suivi il se dit mais saa waay Bougane yow li ngay a bon mooy homme sëñ bi kooku nan la nit ñi di votelé. mais parce que li xew ni nga ko seetaane noonu la ko sénégalais seetaane. problème bi loolu la léegi hôtel Azalaï euh, niveau tout le monde le suivait en direct. niveau d'éveil des consciences boobu nag foofu la différence bi nekk mooy wax boobu ngay wax ne Abdoulaye dafa doon wax ne politique nañ lay tudd que mu nekk positivement que mu nekk négativement mooy euh, autant le sénégalais mais xamul woon ay Ousmane Sonko moo wax dëgg Abdoulaye Wade moo wax dëgg Idrissa Seck moo wax dëgg en tout cas la majorité li doon xam mooy kan mooy naa ko xam naa ko. mooy waajoo xam ne dafa gàtt day watu ndel day sol ay costume yu ngande c'est-à-dire niveau d'éveil de conscience bi nga xam ne fa lañ toll actuellement tollul woon foofu moo tax ma ne politique jamono ji parce que un Bougane par exemple bu fekkoon ne un homme politique la diggante 2007 2006 wala 2000 wala yu demee noonu mënoon na def dara ci politique mais Sénégal nag moo toll foo xamante ne nit ñi dañoo toll foo xam ne ci éveil pour que nga mën tekki dara ci politique ci réew mi il faut wax lu leer naññi naññi naññi ci seen kanam par rapport Bougane disait ci conférence de presse am ñoom Ousmane Sonko ñoo fi waxoon ne euh, dañ fiy jëlee fonds politique te defuñu ko donc foofu moom jàpp na ne daal ñoom li ñu def noonu waxuñu dëgg li ñu waxoon defuñu ko alors que le sénégalais bi seetaan bi nga xam ne ni yow Bougane yaa waroon di wax dara mu koy jaaxal ce sénégalais c'est que moom bu demee xool archive yi su demee xool le programme Diomaye président su demee lire euh, livre solution day gis ñu ne ko dinañu euh, dinañu fi jëlee li nga xam ne moom moo di fonds politique yi. te que dinañ ko remplacer ak ay fonds secrets léegi différence bi entre fonds politique yi nga fi fekk ak fonds secret yi ngay indi mooy fonds secret yi dafay nekk déjà loo xamante ne dañ koy voter à l'Assemblée nationale benn ñaar dafay nekk loo xamante ne dañuy tànn ñaar ci ay magistrat tànn ñaar ci ay député à l'Assemblée nationale benn ci opposition benn ci majorité ñoo xamante ne ñoom dinañ am control sur ces fonds sur ces fonds secrets là mhm. donc loolu moom mooy moom mooy ñoom réforme bi ñu bëgg a proposer par rapport aux fonds secrets léegi Sénégalais bi comprendre loolu yow en tant que politique bi waroon na ñëw am lu lëñ ci xelam nga war ko ko leeralal yow tu viens lu dire non ñoom ñoo waxoon dañuy supprimer fonds politique léegi supprimer wuñu ko donc li ñu wax amul léegi sénégalais boobu nga xam ne yow homme politique bi moom moo la gën a comprendre li xew est-ce que mën nga koo séduire ba mu lay sànnil kartam mm, mm, mm, c'est ça la moom moo la yóbbu VAR euh, mm-hmm. pose la question est-ce que Bougane tombé wul ci piège Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko avant muy accéder au pouvoir moo président Diomaye xam lu doon wax. Mm-hmm. que ni bu ñu faloo te il parlait aux Sénégalais pas les opposants que ni bu ñu faloo. Mm-hmm. bu leen ñu may minute. bu ñu faloo na ngeen ñu topp di ñu surveiller mais dafa mel ni moom ak Thierno Bocoum dafa mel ni ñoom dañoo boole seen bopp ci <laughs> sénégalais lambda yooyu nga xam <laughs> mais xam nga lan mooy premier arme en politique premier arme en politique jamono jii nii xam nga lan la mhm. mooy fexeel ba soo nee nangam la du deñ man amoon saa à dire amul lu gën a fort loolu ci politique jamono ji mais niveau boobu nag gars yi ñoo ko fi indi de ñoom ñoo ñoo tàmmal Sénégalais wax loo xam ni du deñ ak di di dire les Sénégalais les choses ni nga xam ni noonu la demee on se rappelle euh, liste euh, législative yu yu yu yu coalition Yewwi Askan bi bi coow li génne Ousmane Sonko langage de vérité même appel téléphonique yi sax ni mu doon waxee gars yi nii la demee diw ma ma woo wax ma lii diw ma ma woo wax ma lii nii la demee ma woo diw wax lii loolu c'est-à-dire transparence boobu la Sénégalais yi bëgg ñoo indi niveau bi foofu moo tax ñoom tamit faaw ñu jëm a wu léegi nag le problème mooy Ousmane Sonko c'est c'est un inspecteur des impôts euh, le parti Pastef moom dafa formé wu par euh, mouvement des cadres beeg ñeneen ak ñeneen maanaam des sénégalais yoo xam ne ñii ñu ngi liggéey ci biir administration bi ñii ñu nekk surtout la diaspora taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci biir parti bi Ousmane Sonko nekk quelqu'un d'informé mais suñu delloo ginnaaw tuuti dugal léegi YouTube nga tapé pour faire la différence dugal léegi rek nga xool nga xool benn conférence bu Ousmane Sonko defoon ci dénonciation yi mu daan def. tu prends un exemple euh, feeru Falémé. Mm-hmm. Ah mais xoolal conférence de presse bi mu defoon ci loolu. avec des documents à l'appui léegi le problème mooy ces nouvelles opposants là loolu lañ bëgg a def alors que amuñu uti yi war pour mën a def xeetu opposition boobu ils veulent faire. opposition boobu noonu à la Ousmane Sonko alors que uti yi Ousmane Sonko amoon au temps pour leur dire pour brandir des preuves et dire que euh, lii ngeen bëgg a signé ci feeru Sénégal bi feeru falame bi war ko signé ak benn entreprise bu tudd Sociali nii la demee ak nii ak nii donné détails yi cest à loolu moom mooy secret bi et li mu am ci politique lan moo ko fa may mooy sénégalais yi nit yi di toog di la déglu saa boo waxee. su ñu demee ba si biir xam ne diw mi li mu waxoon mooy dëgg bu ëllëgee boo waxee keneen wax li nga wax la ñuy jàpp mhm. mooy bu ëllëgee boo leen nee mën naa soppi Sénégal ñu gëm la tey jii euh, nga ñëw taxaw ci kanamu sénégalais yi nga ne leen lii ak lii ak lii moom moo nekk c'est-à-dire langage de vérité boobu noonu léegi jamono bii nag sénégalais yi seen logiciel lu xel yi moo nangootul ay mensonge ci politique ma mensonge moo mënatul dox ça marche plus en politique léegi le problème mooy éveil des consciences bi ma lay wax sànq. Hmm. ki ngay waxal il comprend tout ce qui se passe c'est-à-dire yow homme politique bi ëppoo ko niveau sooy wax nga ne Ousmane Sonko moo waxoon lii moom xam na lu Ousmane Sonko wax ak lu mu waxul. soo ko nee ce nouveau régime là xoolal démb yow di émission démb bi rek xoolal si biir wax ji ay kàddu yoo xamante ne nii sëñ bi un homme politique buy taxaw naan man euh, xaw ma sàcc moo ma gënal nekk fenkat nekk sàcc moo ma gënal nekk fenkat mhm. yow sañ ngaa wax loolu yow muy toog yow politico est-ce que sañ nga wax loolu sa gémmiñ yow sañoo ko mhm. sàcc ak sàcc moo ma gënal nekk fenkat yow kon nangu ngaa doon sàcc avala de nu homme politique mën a waxee loolu démb si biir émission bi je l'entends mu ne euh, man montre bi ma taq nii mën na mën na gaare waaw mën na sama montre bi moom xam naa ne fi mu ne nii moom war naa koo tayle ji banque de. <laughs> montre bi ma takk nii mën na mën na garantir kër d'accord mu ne mais moom alalam la si biir waxam muy wax ne man digguma kenn transparence yow tu aspires à être président si ay si sa xalaatu bopp. Mhm. tu aspires à être président de la République. devant les Sénégalais tu leur dis man wootewu ma transparence man waxuma dañuy jubal. c'est extrêmement grave. mais saa waay quelque temps après fii ci kanam nga xëy benn bis nga ne da nga dem laaj sénégalais yi pour pour que ñu wóolu la te yow yaa toog si plateau naan man man wooteewu ma transparence man waxuma damay jubbanti yow kay loolu yaa si waroon na jiitu ñooñu même buñ si nekkul nga ne leen ñoom nekkuñ si ju jubanti te man damaa gëm ne réew mi dañ ko war a jubanti hmm. donc yow yaa nga da ngaa war woote loolu nga taxaw si kanamu sénégalais ne leen man wooteewu ma transparence wooteewu ma jubanti des erreurs de communication yoo xam ne danga nga koy payer cash malheureusement pour lui je pense que <laughs> c'est très compliqué en tout cas. même même même teeru bàyyi soogi boobu muy wax moom moom Bougane. Mhm. xam nga je me rappelle bi ñu doon bàyyi xale yi Khalifa Sall defoon conférence de presse di wax ni. xale dañ leen di bàyyi waa mais ñoom. kon ñoom ndax dañu d'accordoon ci li ñu jàppee xale yi lu jaadu loolu lu jaaduwul xale yi ni ñu leen jàppee woon. bu gurgur leen dugal ci kaso noonu lañ leen génneewaat. Mhm. ñoom il se réclame que ni eh, non yow ñoo xam ne dañ leen jàpp yow mu leer la ne ñi defuñu dara. ay mhm. ay ay détenus politique la ñu. dañ leen jàppee ñu bàyyiwaat leen noonu après nga taxaw ni non dañuy waxtaan teeru bàyyi soo gi dañu dile ci kaw askan woo xamante ni si nii eh, yow eh, bu fekkente ni da ngay nekk dans un pays boo xam ni nee nañu dañu war a doxal yoon yaakaar naa kañ loolu warul warul war a mën a poser parce que xale yooyu noonu à dëgg moo la ñoroon tey la nga doon wax kay moo kay nañ leen génne ñoom ñëpp ci kaso yi mhm. léegi bu ñu demee ba loolu am après nga taxaw ni non dañu waxtaan dañu di la loolu itam <laughs> yaakaar naa que ni vraiment yaa yaa problème ci ci ci côté boobu noonu mais Bougane Gueye yi moom nee na instant bii nag dafa instant yi dafa taxaw de parce que nee na li ñu mayoon tey régime président Macky Sall duñu duñu ko may ñii maanaam œil pour œil dent pour dent <laughs> maanaam duñu leen <laughs> duñu leen duñu leen may lu toll ne tarfatal ay oui et je pense ci loolu il reprend des terme de Ousmane Sonko qui disait autant kuñ fi falati ak koo mën a doon mu doon ñun mu doon keneen ak keneen. amatul ay temps de grâce mais bu xaa day Sonko Sonko lu. waaye ci loolu. addunaa mi def kaa Sonko Sonko lu. <laughs> Ah, parce que lu ma wax rek nga xëy <laughs> lu xoolal àddunaam yëpp xoola et je je vous dis dinaa lox benn affaire soo seetloo même c'est-à-dire loolu daf koy trahir même dans son jargon si vocabulaire Bougane soo seetloo y a moo kii qui yoo xam ne nii soo ko dégloo bu baax a baax c'est-à-dire am na loo xam ne mënoo ko nëbb et aujourd'hui lu ñu mën a wax nag Sénégal il faut accepter que Ousmane Sonko dafa nekk ku incontournable ci géopolitique gu Sénégal ci parcours am ci ni mu doxee ci politique ci résultat bi mu am. Hmm. en dix ans de 2014 à 2024 mu ñëw au pouvoir ci façon bu extraordinaire c'est-à-dire quelqu'un boo xam ne dem na ba moom mënut a nekk candidat ci ay élection présidentielle mais bu xëccee benn waayam ne ko yaay sama candidat kooku gagné élection yi au premier tour. Mmh. élection premier tour ñu gagné ko opposition gagné ko c'est inédit dans l'histoire du Sénégal tey jii loolu la euh, tey jii le parti Pastef réussir pense que problème bi nga xam ne nii moom la moom la moom la ku mel euh, Bougane am c'est ça mooy politique démb ak bërki démb ku mu neexoon nga politique da nga daan gis koo xam ne sax da nga daan nekk si koñ bëri wax euh, di wax lu ñor ak lu ñorul ñu ne la yow de mën nga nekk politicien parce que da nga bëri wax. Mhm. wala nga nekk si koñ bi bëgg affaire de teg xel <laughs> jaay bopp affaire yooyu ñu ne la yow mën nga nekk homme mais jamono ji bala ngaa nekk homme politique buy dekki dara ci biir réew mi ça va très compliqué parce que da ngaa tombé ak benn. Euh, Euh, benn génération bu éveillé lool lool lool lool li ñuy waxtaanee ci poli débat politique bi. Mhm. su la neexee sooy def débat politique kebe ngay invité bul sonn bu fi ne di tu di chercher de gauche à droite kii responsable tel parti kii responsable tel parti soo woowee responsable politique bu la neexee génnal si mbedd mi for benn waaye teg ko fi ne ko kay débat ak waa ji te bu toogee day débat ak moom parce que li xew yëpp xam nañ lan la. Mhm. mooy bu njëkkoon li daan xew ñu jël débat bi tubaabal ko xam nga dañuy wax pendant une de temps alors qu'ils l'essentiel mooy nañuy làkk ay tubaab nañuy gëmloo sénégalais yu amul loolu c'est révolu tey ci histoire politique bu Sénégal am na loo xam ne mënatul nekk et tey pour que nga nekk homme politique dama la wax benn affaire mooy sénégalais yi mensonge dañ ko bannir ci homme politique nangootuñ ko tey ji événement wu am wu Ousmane Sonko boo gisee ni mu ñëwee ci politique ak discours bu bu bu bu véridique bi mu undi yaa ngi wax sànq ci ces affaires là da ngay gis xam ne homme politique classique daf la non lii waroo ko génne parce que. da nga war a nekk un homme d'État alors que lu mel noonu Ousmane Sonko daf koy génne parce que façon communication mooy tout le temps dafa bëgg lépp di transparent du am lu ñuy nëbbul ki nga xam ne moom moo di euh, le citoyen sénégalais bi nga xam ne moom moo nekk au cœur du projet donc je pense que taxawaay boobu noonu dafa nekk lu am solo mhm. tey jii Sénégal politique fii ci ay caaxaan c'est impossible mënatul nekk ku amul niveau intellectuel pour di wax lu yéem nit ñi. Mhm. ku amul information yu doy waar yoo xam ne boo ko waxee ñëpp euh, dar seen i gémmiñ. Mhm. ku munul loo wax mu leer la ne man li ma wax nii Sénégal yëpp ñu ngi may déglu. Mhm. lii ma wax nii fii ba l' extinction du soleil li ma wax kenn du ko dindi maanaam foofu la affaire bi toll. mais tout le temps soo waxee léegi-léegi bala ngaa pare ñu vaar la soo joxee chiffre boo nee 40 la bala ngaa dem ñu ne la non du c'est pas 40 c'est chiffre moom war na ko bàyyi moom xam naa xam naa <laughs> bëgg na chiffre soo nee 40 bala ngaa pare ñu ne la du 40 16 la mhm. soo nee non gars yi dañoo wax lii waxu ñu génne la vaar ne la gars yi waxuñu woon lii lii la ñu waxoon c'est-à-dire kan ban sénégalais moom mooy mën dem di jox confiance am nit kooku noonu pour que euh, di la voter wala quelque chose comme ça. Mm-hmm. et politiquement li nga si perte moo ëpp li nga si gagné. Mm-hmm. même si comme fi ñu tàmbalee sànq mën nga jàpp ne bon man j'existe parce que chaque jour on nous euh, parle de mois chaque jour ñu ngi wax si man mais i daal comme fi ma tàmbalee laa koy laa koy jeexalee. Mm-hmm. mooy da dugg si commentaire yi gis sénégalais yi di bind si commentaire yi. Bougane a un problème de niveau imagine un homme politique bu demee ba euh, ci. sa ay sa sa sa sa sa live nga gis ay xaw ma cinquante mille et quelques mais sénégalais yi actuellement ils sont très très très éveillés et loolu yow li li ngay wax nii lu yàgg la sa date pas d'aujourd'hui effectivement Bougane fu mu mës dem ci émission da ngay toog di gis ay quatre vingt quatre vingt mille. yàgg nañ ko waxtaanee mais ci rédaction yi yow mi xam YouTube yow mi xam YouTube yow <laughs> tey soo amee cinquante mille. Euh, spectateur en temps réel. Mhm. sa live bu jeexee ci saa si saa si dafa am nombre de vues boo xam ne war nga ko atteindre. effectivement naka nga mën a amee tey yenn nombre de de spectateurs en temps réel ba pare. yow nga pare émission bi jeex nombre de vues matul sax nombre de spectateurs en temps réel. Mhm. c' est impossible mun a nekk. Mhm. léegi yow kan ngay nax sénégalais mais mais mais mais nag mais nag euh, kii Bougane xam naa ni pression fiscale bi metti na ko parce que nee na réew mi fi mu ne ni ay daggkatu juuti lañ ko jox quoi <laughs> maanaam ñoo xam ni ay daggkatu juuti lañ mu fi mu ne nii daa mel pression fiscale bi nga xam ñi leen koy teg ñoom chef d' entreprise de presse yi metti na ko mais li ma jaaxal Bougane Gueye moom nee na am na montre bu mën a garantir kër euh, ci boo xam ne da koo takk ci loxoom Kébé li may wax si si si ngeen baal ma si terme bi si yenn bêtises yu nit mën a wax école national d'administration bu fekkoon ne bu fekkoon ne dafa am spécifiquement une formation boo xam ne dañ ne lii mooy formation wu ko war a liggéey si gouvernement bu fekkoon ne am na mhm. doo fi jéggi ENA di dem ci beneen école koo xam ne ñoo xam ne dañ leen jàngal ñu jàngal leen ci école nationale d'administration nga ne yow ñooñu waruñu jiite réew ñoo xam ne dañoo liggéey ci ci ci ci biir ci biir ci biir euh, DGID kopparu Sénégal fi muy jaar maanaam tey jii bu ñu defee sunu sunu budget def prévision bi ne tant ci alal lañ soxla ñooñu ñooy fexe ba tey sa gouvernement laa xaalis boobu mu soxla mu mën koo génne pour jox leen ko. Mm-hmm. nga ne ñooñu war ñoo jiite réew. léegi par contre yow c'est quoi ton parcours yow lan ngay proposer parce que boo nee lii baaxul da ngay wax lan moo baax lan ngay proposer yow en comme comme comme parcours. non parfois c'est-à-dire da ngay gis nit muy wax wax boo xamante ne nii war amul néew ko mën a tuddee lu dul waxi dof parce que yow et ñoo xam ne dañoo dem jàng ji administration. naka la ñuy administrer nga ne ñooñu ñooñu c'est-à-dire dans ce pays yow boo tëbee ñi jàng administration ne ñooñu waruñoo jiite kan moo war a jiite dans ce pays. Mm-hmm. et di leen jéem a rabaisser benn nit benn Ousmane Sonko benn Bassirou jamaay Faye nga leen di oowee ay euh, daggkatu juuti sëriñ bi amul respect ci cette administration là yow nañu waxante dëgg buggaan njàng mi. Euh, ñii jàmbaar yi tey jii nekk ci école nationale d'administration bii nii jeunes yi fi nekk di jàng def concours génn ñi nekk major de leur promo génn dugg ci biir administration bi di di di servir seen réew mais ils ont de mérite que Bougane nañ waxante dëgg nga bëgg jël ñooñu juste parce que am nga benn problème bëgg nga tuutal Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye wala dans leur nomination tu vois tout le temps ñuy nominer ay ñoo xam ne ci biir école yooyu lañ jaar wala formation inspecteur des impôts lañ am mm-hmm. lan moo gën a noble un inspecteur des impôts dans un pays mm-hmm. nga bëgg jël ñooñu rabaisser leen na ñoo nga leen mën a woowee ñan ñoo gën a méritant ñooñu si biir réew. c'est très dommage mooy li may wax nii sax dangay ngay wax yoo xam ne boo waxee fi ngay daanale lenn nga siy gañe mooy nit ñi xeeb la et tout le temps comme ça dans son discours. d'accord mais moom moom xam nga parce que nag euh, on se rappelle tous euh, bi muy def vidéo naan euh, bis bu ñu demee deuxième tour nañu xool ci candidat yi ci méngoog ñoom seen programme jàppale ko nee na mosul wax loolu. nga ne en cas la woon. en cas de deuxième tour waaw en cas de deuxième tour eh, mooy li ma lay wax nii rek. c'est-à-dire dinañu dinañu dem réew bi lu fi waay di wax xam ko les gens dañoo éveillé dañuy dugg TikTok <laughs> dañuy dugg Facebook dañuy dugg YouTube ak feneen ak feneen fu gars yi xamul donc. les vidéos sont là ba ngay wax balaa ngay pare benn xale bu ndaw mooy toog këram déglu la nga wax ba pare. Mhm. mu dem génneel la vidéo bi ñëw monteel la bindal la vaar. nga ne bu ñu demee deuxième tour incha allah et loolu c'était une réalité nag. Kébé réew mi homme politique yi homme politique classique yi moom buggaan xaw ma nan la def ba am état d'esprit boobu mais en tout cas homme politique classique yi ne woon ci biir réew mi amu ci kenn kenn kenn koo xam ne gëmoon na ne réew mi mën nañu euh, gagner ay élections présidentielles au premier tour kenn gëmu ko woon moom ni mu ko waxee noonu la ko Khalifa Sall waxee woon au temps génn def sorti ne ne non réew mi kenn mënu fee gagner élection au premier tour suñu demee deuxième tour dañuy def nangam Barthélemy Diaz a dit la même chose ñeneen ak ñeneen homme politique yëpp de gis nga Yérim la dernière fois mu ne noo sondage yi loolu la génne woon ak yu demee noonu kenn xalaatul woon ne réew mi dinañ dem élection présidentielle opposition di ko gagner au premier tour et d'ailleurs c'est inédit Sénégal loolu nag dafa nekk loo xam ne man personnellement sama xam bariwul sama jàng soriwul mais Kébé yow yow ak man ak keneen ak keneen suñu toogee ay at ay ay weer si ginnaaw suñu xoolee li xew au Sénégal ñun ñëpp xam nañ ne lii ñuy gis nii bu ñu demee si élection gars yi am nañ chance su gagné élection au premier tour. léegi li may wax sànq si taxawaayu homme politique waroo nekk wax naa sànq ne waroo nekk kuy débat débat wu grand place wala wax boo force mbedd mi rek ñëw indi ko si place publique bi mais waroo da nga war a nekk quelqu'un de très mooy tey. man damaa déglu Ousmane Sonko ay weeri weeri weeri weer je un exemple Ousmane Sonko ci meeting cloture bu euh, coalition Diomaye président stade de Mbour. xam nga la moo nekkoon début discours am. Mhm. mbokk yi élection yi dañ koy gagné au premier tour. man loolu ak gëm c'est-à-dire mbir boo koy def te mënoo ci am maîtrise mënoo xam yow fi fi nga war a jëm ci politique mais vaut mieux nga bàyyi. mooy man en tant que sénégalais su ma gisee campagne bi ni ñu ko déroulé xool gisal sama bopp du début Euh, ba bi Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay di génn prison ma gis fule bi mu def ci biir réew mi mais tu vois nettement que lii si victoire la jëm et laataa loolu bu ñu toogoon en prison sénégalais bu am xel di xalaat ki toog këram di xalaat laa la wax boo ko laajee mu ne la élection yii ñu jëm bu Ousmane Sonko toogee ci ci ci kaso bi Bassirou Diomaye Faye toog ci kaso bi dañuy gagné élection yi mais sénégalais bi comprendre na loolu mais homme politique bi mun a comprendre loolu moom et pour man loolu moom mooy vrai problème mu homme politique yi mooy tout le temps xaw ma dañoo am ñoom seen ay laboratoire yoo xam ne fa la ñuy jëlee information wala seen euh, euh, nu mu tuddati sondage yooyu ñuy wax nga xam ne Yérim keroog mi ngi koy wax en tout cas man li ma jaaxal mooy ñoom ñëpp kenn nangootul assumer sa ay propos ñu doon wax naan waa ji du bokk ci élection ak ñu doon wax ne élection kenn du ko gagné au premier tour dem na ba ñoom ñëpp nangootuñu accepter que ñoom ñoo yëkkati kàddu yooyu noonu donc li may wax sànq rek mooy à chaque fois mbir mi loolu la mooy da ngay wax kàddu nekk magum jëm nekk homme politique bala nga daaneel xale bu ndaw moom mooy dem euh, prouver aux Sénégalais yi que li nga wax du dëgg lii nga wax fii nga ñëw taxaw weddi ne waxuma woon loolu et à chaque fois c'est comme ça li euh, résultat bi lenn la ridiculiser davantage sa bopp nit ñi Sénégal je le répète encore une fois doot nu ñu baal mensonge homme politique mën nga def lu ne lu ne lu ne ci biir réew mi parfois nga toog ñu ne non diw dafa am fuggu diw dafa def lii mais le mensonge ci biir réew mi gars yi dootuñu ko bal homme politique eh, ku bëgg a euh, tekki ëllëg dara ci politique fexeel ba looy wax sénégalais yi suñ demee ba si si njobbaxtal gi ñu gis ne kii kat lii mu ñu wax nii moom mooy dëgg lii mooy réalité bi et aujourd'hui ku fiy gagné ci politique dëgg moom moo la koy may ku fi ñàkk ci politique dëgg moom moo la koy xañ donc ku am travail boo def wàllu politique jamono ji defe naa benn travail la mooy loo wax lu nekk lu coow li bari bari bari xoolal tey. Mhm. te loolu dafa indi confiance xoolal tey Ousmane Sonko génn wax si euh, affaire vingt 94 milliards yi. wax si ba mu si waxee nga gis cette diabolisation bi amoon ñu génnandoo ne noo waa ji soskat la du waxkatu dëgg dafa def lii tuumaal ko sax ne moom dafa bëggoon xaalis ci ci procès boobu moo tax mu dugal ci loxoom finalement nag lan la ñëw lan la ñëw wax nag dafa ñëw ci euh, rapport bi d'ailleurs génn na récemment si rapport bi nag ñëw leeral ne Ousmane Sonko lii mu wax ak plainte bi mu def def nañu suñuy enquête déglu nañu ñi ci war a déglu ñëpp mais Ousmane Sonko dañoo jàpp ne li mu wax il a raison surtout toute la ligne. Mm-hmm. et que war nañu ubbi ay poursuites judiciaires contre ces gens là wax jooju noonu léegi sénégalais bi déggoon coow loolu noonu tey amoon si doute mais bu demee ba toog ba dégg of nag nee na Ousmane Sonko li mu wax il a raison sur toute la ligne loolu dafay jur benn confiance ci diggante sénégalais boobu ak Ousmane Sonko loolu rek mooy différence bi mooy kii daf lay wax nga dem ba si biir nga gis ne li mu la wax moo am kii daf lay wax waxuma sax dem ba si biir mais fa mu ko waxee balaa muy pare ngay xam ne kii li mu amul. doo si gagné dara en politique. et malheureusement ñoom foofu la ñu teg seen tànk. effectivement mi ngi noonu am na solo mais euh, ñu ñëw parce que démb ci ñu naan Ndiéguy jóob dafa yëkkati ay kàddu yu xaw a euh, doy waar gannaaw bi nga xam ni doon def janu euh, ak.